les champions d'Afrique mesdames et messieurs bonsoir bienvenue dans votre émission Diine ak Jaar Jaar l'émission qui vous surveille qui vous réveille et qui vous merveille ak chaque fois comme ni amee contentement bu baax a baax di leen dalal seen boo xam ne ñëpp moom ngeen di xaar waaye tamit di ànd ak euh, sama mbokk maanaam ñaar nii nii euh, kii di système benn séeréer bu rafet séeréer bu nice séeré bu soob waaye tamit di sa ànd bu baax a baax euh, sama oustaz koo xam ne à chaque fois bu waxee xool yëpp féex à chaque fois bu waxee xel yëpp dal à chaque fois bu waxee tamit ñëpp daal di kontaan ñëpp daal di dokkal si ay kàddoom muy sëñ Habib asalaamaaleykum. sëñ waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu. Mm-hmm. seen ñu ngi leen nuyu bu baax di nuyu système benn. Mm-hmm. di nuyu caméraman yi nga xam ne moom ngeen gisul. te li fi leer yëpp ñoo koy leeral. Mm-hmm. comme d'habitude rek seen mbégte mooy suñu qualité. di leen safoo rek dañu xaw nañu fi gëj nag. waaye namu leen lool. ñoo la waaw waaw waaye yal na yàlla def jàmm rek. très bien dafa mel benn énergie bu forte ba mën naa may këf. waaw waaw waaw xam nga nag damay damay ut fële benn ñetteel. da nga nekk projet yooyu. si projet bu laa nekk. Thiaw <laughs> parce que rasulullah man sa li moo tax man man nga neex ma. waaw si laa nekk moo tax ma ànd ak activité. gisoon ni ma tàngee. waaw te booy wut bi paa. laal si 2000 yi. laal si 2000 yi. 2000 yan. la mooy xale 2000 yi. non yii déedéet yu mooy. laala boobu moo bu gën a ndaw soxlay jël nga naan bu. xanaa kon 2004 nga jëm. waaw voilà mu ah, yoo xam ne dañu may delloo dañu may delloo 18 ans. waaw wàcc nga ba 15 ans. na wàcc suuf dégg nga si waaw kay jërëjëf mooy gën a baax parce que lu ko mooy day xaw a day xaw a kii. si loo sant yàlla bu baax a baax naka wasaare. te namoon la bu baax. naka DG bi. DG moo ah, gis de. waaw waaw loolu de xaw a dagg si coom ci la. Ah, loolu moo moo tax. <laughs> fu ma paree foofu laa jógee daal di nuyee kii di système benn séeréer bu rafet séeréer bu naay temps yi xam ne lu muy sol moom sa giir baax na de. sama yaram a ko miin nag. ok jërëjëf sama yaram daa miin sañse nuyool nuyool nuyu naa la seen di nuyu sëñ Habib di nuyu sénégalais yi nga xamante ni aussi ñoom ñoo ñuy bàyyi xel di amaat mbégte ak kontaante comme chaque jour ni ñu koy defee ci seen plateau diine ak jaar jaar ñu fas yéene na ñëwati rek defati na woon fa woon delloo ci buum ca mboy mboy ba comme nañ ko daan defee comme ni ñu ko doon defee diine ak jaar jaar l'émission qui vous surveille qui vous réveille et qui vous émerveille loolu waral tey nii yéen ko déggandoo gannaaw ba Sénégal lii di qualifié après dinañ fi Sénégal yëpp kontaan dafa am benn wax joo xam ne muy wax joo xam ne Sénégal yu bëri ñoo ngi koy naqarlu bu baax a baax muy Serif Ibrahima dara koo xam ne kilifa la si dëkk bi euh, waaye temps yi nag xam naa comme ñu koy waxee à chaque fois nit rek moo dul juum oustaz mu gékk di ay kàddu yoo xam ne euh, wolof yi tooñ tooñ daal tooñ yi di wolof yi ñu ñëpp bëri jàpp ne euh, ay kàddu yoo xam ne tey waru ko war wax ak tànk kilifa ba jàpp ne ñii di ay wolof yi sax maanaam duñ ay nit ñu baax tukuleel ñoo leen gën dem na sax ba si laa ñi di séeréer yi mm. eh, noo déggee kàddu googu waaw euh, di ko naqarlu la ma sa gën a métti nag mooy Seydil Hadji Malick bi mu si tudd eh, li mu wax Seydil Hadji Malick mosu see wax mm-hmm. bu ko si kenn dugal mm-hmm. kon ay sosam lañu muy sos mm-hmm. bu demee bay sos nag na jël moromam wala màppandooram waaye bañ si dugal koo xam ne sëriñu baayam la kon kàddu yooyu bëgg naa mu teggi ko bu ëllëgee bu ci wax mhm. mag muy fo nag te yàlla bindiwu ko fo mhm. ñàkk jom weesuwu ko lam tarxees la mhm. war na sa e, e, jéggalu ñi nga xam ne ñoom la xuri ndax tooñ baaxul ndax asul musulmaatun yowmal qiyaamati tooñ ay lëndëm la yu lay ñeel keroog bis penc mhm. fekk la sa biir bàmmeel kon bu rawatina mu bokk ci la géej googu ñuy wax xaydara nga xam ne ñu ngi bàyyeekoo ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mhm. de xëy na mën nañ ko ko saa xoolee mhm. waaye nag du loo xam ne maamam bane ko fi. Mm-hmm. muy muhammadu rasulullah. Euh, yaakaar naa kuy roy nag dangay ngay roy sa maam gannaaw sa maam moo nekk xayrul aalamiina mm-hmm. te moom bàyyi na yoon wa maamam nekkoon ndax maamam Bilal ibnu Rabaax nit ku ñuul la woon moo njëkk a taxaw ne allahu akbar noddu noddu goo xam ne sëlal lislaam mm-hmm. ay buumam daggee woon. maanaam dañoo tënkoon lislaam waaye kerek bilaal moo tënki lislaam fecci ko fañ ko façon looloo waral foofu laay defee benn tradition euh, système benn parce que dem na sax waxuma sax wolof yi mais dem na sax ba si nit ku ñuul parce que jàpp na ne moom foo mënti dem si nit si àddina bi nit ñi ñëw fi gën a soxor moom sax dem na ba peut-être mun na jàpp jàppewul boppam li nuy ku ñuul parce que boo déggee sax ay kàddoom moo ngi naan man sama benn parti sax naar la ça veut dire que naar sax génn ñu ñuul yi noo déggee kàddu yooyu. moom naar la mu ne. naar la mais yaayam séeréer la. ok kon instant yi wax ji waruñoo mën metti sénégalais yi. Mhm. comme yaayam séeréer la te mu doon kilifa. génne kàddu yu ñaaw yooyu jëmale ko ci olof yeeg séeréer yi kon fu mu nekk nii bu waxee kàddu gi na ko xoolee ci boppam rek. xam ne comme yaayam séeréer la te xas na séeréer yi kon xas na yaayam benn waaye sénégalais yi fi mu nekk nii affaire bi dafa yomb pour man li ma jàpp parce que tey mënul nekk ñoo xamante ni dañ leen di woowe ay kilifa chaque jour ñu génn ci dëkk bi di am wax yu nga xamante ni yu ñaaw la ay kàddu yu ñaaw ñu koy génnee ba pare soo génnee kàddu yu ñaaw wax loo xamante ni lu la neex la ba pare. Mhm. génn si dëkk bi di baaluwaat man dama jàpp ne loolu dafa yomb. ma man xaw ma bi buzz la ñu ciy ma lan la ñu ciy xam nañ ko ba pare. waaw man xam nañ ko ba pare. xam nañ mhm. kilifa la ci réew mi. Mhm. kon est-ce que tamit mënul toogee di wax mu segg waxam xool ko xoolaat ko ba pare door koo génne wala loolu tamit mënul nekk tey gis nañu fi ñoo xamante ni dañuy wax di di jaxase chrétien yi ak jurit yi mm-hmm. gis nañu ñoo xamante ne ni wax nañu fi leneen ak leneen fu ñuy mujjee génn baalu mm-hmm. pare ci wax jooju loolu man damaa jàpp ne dafa yomb mm-hmm. instant yi ku wax loo xamante ni waru ko wax yoon dalaa war a teg loxo ñu teg la ci yoon jàngal la nga xam ne mooy àddina bu fekkee yow xamoo mais est-ce que du maanaam du Sénégal yi ko bëgg a garaawal yéen yéen garaaw yi parce que des fois dama jàpp ni même fekkee ne ay kàddu yu ñaaw sax génn na mais te Sénégal maanaam talatuñ foo xam ne a chaque fois nit bu waxee ñu topp si ginnaaw naan diw wax na lii diw wax na lii est ce que loolu dara na ko fu mu toll nii est ce bàyyi rek maanaam lépp sedd ni daal di jàll sa leneen. waaw Mbayeen wax na ko sànq euh, ni kilifa la. mais damay dàq baat boobu. ah sëñ bi ah, moom mënoo moom kenn mënu ko ko kilifa si kàddu lañ koy xamee mais diw si ay jëf. mais nit ku nekk mooy. juum tamit ci ay kàddu si ngay juumee ñëw maa ngi ñëw duulit si barab ba nga nekk nga jiite fa wala mbooloo topp sa kow loolu du kilifa il faut ñu xàmme kilifa ak ki ne gàng ak ki ne feng waaw mooy kooku rek kii du kilifa ah, kilifa day génnee si baatam baatu kilifa kilifa xam nga mooy lan mooy koo xam ne bu waxee nit ñi def bu ne baleen nit ñi bàyyi mm-hmm. kooku mooy kilifa waaye kii li mu wax nii dañ ko si doxee xeet mm-hmm. te ku ko joxoon cent nangu nga ko ba mu desi dix mm-hmm. kon kooku du kilifa. mais mais sëñ Habib comme ni nga waxee kilifa la parce que kilifa bi moom kenn mun koo kenn mun ko ñëpp xam nañ ni xam-xam la allah sérif la wa beneen bi tamit yë sëtu sëtu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la donc kooku mënul weesu lii di kilifa yàlla may na ko. xam-xam bi sëtu yonent bi wax naa la fi sànq la dafay jaar fa maamam jaaroon mu war a nekk. tànki maam war a mu nekk maam sax directement moom si tànk yooyu non de waaw moom si tànk yooyu parce que bu nga xamee ba léegi mu c'est la première fois ñu mu daal di juum yow c'est la première fois yow mu dégg mu daal di juum waaw comme ban euh, bari na duñ ko fi ne fii buñ ko non non c'est déedéet non non c'est-à-dire que li ma lay euh, wax nii bari na ay njuumte yu muy def moom sirif boobu man yàgg naa koo siifu non c'est vrai waxtu mu génnee rek erreur lay wax. non non catastrophe lay wax. bii moom nga dégg parce que yow xëy na yaa ngi koy door a dégg. non man c'est pas la première fois ma dégg yàgg naa koy suivre dara baa ma jox la benn exemple. yàgg naa koy dara. keroog Sénégal muy football final bi. moo njëkk génn télé bi wër télé yëpp. di woote jàmm naan ak lu mu mënti xew mm. na Sénégal yëpp daal di daal Sénégal yëpp nañ di daal mm. bu kenn toj benn oto jàmbur bu kenn bu kenn yàq dara ah. ak lu mu mënti xew ça veut dire kooku nitu jàmm la kilifa la parce que bu nekkoon kilifa du ah. génn di di di dalal mm-hmm. kon tey boo ñëwee ne du kilifa te eh, am en plus c'est pas la première fois mu daal di wax wax yi ñaaw yi mm-hmm. boo mooy xëy ne ma man jox naa la preuve bu leen naañ par war a kilifa nga yow ah. tamit danga war a jox lu leen naa ne ma jiwoon na fii jiwoon na fee jiwoon na fële na bari na lu ñu lay wax nii yoo xam ne nii euh, dat yu ma a a jàpp la. non ñuy wax si dara la jiw xam nga yi ngay wax ni pay mën naa am yàggul. Hmm. mais li ma lay wax nii man xaw na yàgg tuuti. mais wax la wax ne la date sangam. Ah, non ma la wax nii bu mooy lii nii ñuy waxtaanee. comme ban wax wax ju rëy. comme kon moom duul kilifa. su ma ne du kilifa du kilifa. kilifa day génn si baatam waxu kilifa mais li mu wax ni du waxu kilifa loolu laa la bëgg a wax. mais ma ko kilifa de waaw mais yow da nga mun nga ko jàppee kilifa mais. non du kilifa sax ci Sénégal sax. non non kilifa la d'accord ma du kilifa. xam-xam la naa doon mën na yow mën na doon kilifa ci yow mais ban ne doon si kilifa ci gis-gis sëñ Habib mën na gis que ne nekkul kilifa ci moom. Mhm. tey mënoo ko forcer ba mu doon kilifa ci moom. mais tamit forcer moo ko mais même bu mu ne du kilifa ci Sénégal. parce que moom mënul nekk du kilifa xam-xam la borom xam kilifa boo déggee mane kilifa ka mu concerné la ne kilifa mais man concerné wu ma xam nga wax dama la man concerné wu ma ki ma concerné muy kilifa mooy kuy wax waxi kilifa di wax joo xam ne wax jub la mais même bu juumee. kon léegi bu waxuma bu juumee nekkatul kilifa de mais bu juumee c'est contesté ba mu juumee nekkatul fa kilifa. mais li mu wax ñeel xeeb na ay olof xuri na ay séeréer. ne moom mooy daan mooy dara ñeneen ñi des duñ dara mais kooku du baatu kilifa seen wax ji jarul ñu koy raay raayal. moom moom moom mi jàppee boppam dara la man damaa jàpp ne du dara parce que yaayam séeréer la kon moom bu laalee naa tamit laal na séeréer kon moom bu xasee séeréer yi boppam la xas kon foofu mënu dara mënu faa am moom mënul nekk dara suñu kanam. lépp benn la jàpp naa ne Sénégal fu toll nii maanaam si lu nekk si maanaam si si instant yu nekk loo xam ne am na yoo xam ne kenn waruñu ko yàqal nit nag bu juumee comme ni nga ko waxee sànq nit mooy juum à chaque fois donc bu juumee ne am na yoo xam ne ko war a bàyyi mu jàll di daal di jàll si leneen. ko bàyyi mu jàll duñ ko bàyyi mu jàll moom mooy ñëwaat bu ñëwee tuub jéggalu ne dama def la ma waxoon du dëgg. waaw moom moom leen ma. mais lu may bañ. Ah. mooy ngeen tegg ko loo xam ne nii. Mhm. yàlla moom moo ko def maanaam mhm. mhm. ne ñu bëri yoo topp loolu nag dafa ah, war a jeex ah, seen. déglul ma wax la loolu dafa war a jeex. indi beneen hmm. na fekk na ñun njëkkee woon coow li ñun ñoo ko mujjee. mais moom moo njëkkee coow li bu juumee ne jégalu bu jégaloo kay ñi ko mën a jégal jégal ko ñi ko mënut jégal duñ ko jégal kenn du ne du ma juum ah, te waxkat bu nekk tamit booy wax chaque jour accident làmmiñ dafa am kenn mënul ne accident làmmiñ mënul ñàkk mm-hmm. mais nit ki nga xamante ni da nga jàppee sa bopp kilifa nit ñi respecté la jox la cër boo toogee di wax c'est mieux que nga segg say kàddu seggaat ko jël sa temps ci li ngay wax xam li ngay wax lan la bañ a nekk nit koo xamante ni fu la kàddu fekk rek nga wax kàddu boobu kam nu mu la neexee nga waxee ko noo xamante ni ku la gis dalay xeeb mm-hmm. fii eh, ñëpp fii ñëpp fi ay kilifa sëñ Habib mii kilifa la yow mii kilifa la réew moom li tox wax taal nam réew. mais gis nga indi personne yoo xam ne wax nañu ni taal bi daal di taal réew. maanaam nit ki fu hmm. kuy wax mu mooy juum. Hmm. te en plus il faut que nga xam ne ci benn affaire. Hmm. à chaque fois nit buy def lu baax kenn ko wax dara. mais il suffit que nit def benn lu bon. Sénégal yéen bëgg a awti awti il faut que ñu loolu tam du du du part. ñi koy wax nañ arrêté mais bu waxee. am ñu commentaire. mais il faut que tamit ñu daal xam ne Sénégal ñëpp daal euh, benn la. Mm-hmm.